lepp lu mu wara wax rek wax nako budé yar yar yi gor dul def gor du ti ba gor du ñak ba saj gor du soppiku gor du xam fak gor du japp di bay yoy yëpp daf lu quran wax su ko defé kon ngeen di fàttaliku yoy fi ngeen mëna tontu fu ngeen mën a toll. du ñàkk sàcc du soppeeku du jàpp bàyyi am na wu leen Seydi Mbay bi la moo bàyyeel